Galass Ndiaye mu ngi nii dañ ko génne Galass Ndiaye Ouzin Keita dañ ko daax Galass Ndiaye maa ko dañ koy bañ Ouzin ko daax Galass Ndiaye maa ko wax Ouzin dañ ko daax Galass Ndiaye mu ngi nii Ouzin ko si biti ni ko ko daax Ouzin dañ ko daax kër Aziz Ndiaye waa Ouzin dañ ko daax kër Aziz Ndiaye mu ngi nii dañ ko daax dafa ñëw ñu fi ay cant fi am ay cant gàmmu fi am dañ ko daax dañ ko daax daa ñëw kër Aziz Ndiaye ñu daax ko ni ko bul dugg dugal dugal dugal dugal dugal gaa yi nit reetaan ñëpp a ngi nit ko reetaan gaa yi reetaan leen waaye dugal dugal du dugalee dañ ko dàq doo du fi ay jàng fi am lii gàmm la dañ ko dàq gaa yaa ngi nii di war a daal dañ koo dàq daal ñu ko bu fi dugg du dugg tëjal buntu bi du dugg de

Welcome to the samay lawul المصطفى والمسلم من خلاني يرده لا خوف في نخله إلا تخول أمور على الأولى لا خير المسافة تلك المسافة organisé ku day loo xam ni li alquran ni wa awfu bil ahdi ilal ahdi kaana mas'uula mooy rek suñ masa bi ni ngi lay jaay dama atal buyuuta min abwaabihaa te yow yaay kilifa bi yàlla na yàlla dëgëral la ba xurmati rasulillah maa ngi nuyu Abdoulaye si baax yi muy bàyyi xam ñoom dañu wax ne yàlla yàlla dundal seen fan sawar seen kër si dara ji di jii di moo li gor si léegi nga xam ne ko baax na ko baax maa ngi nuyu sëñ Mohamed Sylla sama sëriñ bu baax bi toog nga xam ni gis ngeen nii mu defante ak ñun ak gaa yu baax yëpp sëñ Maxtaar Loo mu baax bi ah su teral ñoo teral ngir yore bi maa ngi ñaan si dara ji rasulullah yàlla bu ngeen jëma ci du ngeen tëddee jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam Abdoul Ahad Kise sama sama xalifa bu baax bii nga xam ni moom bañ ko tuddee si ñëpp daal lépp lépp matoon maa ngi lay nuyu di la siyaare Kise maa nga gudd yow gaa yëpp xam nañ ni or boo jaayee bu or original yow original bi yaa koy jaay yàlla yàlla mu def sa sa sa kër yaa ceeb Fall bu baax moomu jërëjëf di baax bu baax. jërëjëf sëñ Ibra Sam yàlla yàlla Samb jërëjëf fi nga jaar ñun ci catu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fayal ñu la jërëjëf assuré xaaral ba ba biir ne dana assuré lan laa la amalee. mooy yow moomu ay fan ñu changé rythme bi waaye tas tuuti gars yi mën a gis. changé rythme bi tas tuuti. ñu ngi dalal suñu gan gii toog jóge ca réewu Turquie ànd ak ñun ci guddi gi nga xam ni mooy guddi yéen bi sallallahu alayhi wa sallam كأنه يتحدث في العربية ولكن نرحب بضيوفنا هؤلاء الذين جاءوا من الخارج لتنظيم هذه الحفلة لإحياء دور النبي صلى الله عليه وسلم damay woo Ndiassé Gueye sëñ Ndiassé kon yëpp dafa doon mashkura mu jàngal ñu ayat min zikril hakim ci fukki minute incha allahu taala